ni eh baal baal di nekk ci laa bi naan ay jëlal kii yeeg ay nangam nangam est ah ah voilà maa ngi jégalu bu baax tey chocolat sama doom la rek te dama baax na garaawul man kii naa man tëj naa buntu bi mais tafakaa ñi namu raw mon frère ci loolu maa ngi nii rek maa ngi sant yàlla bu baax. tey samay yow du bari du bari dama lay bàyyi nga wax ma lan mooy sa xalaat ci combat tuuti roi des arènes bi ak noo ko jàngatee sa xel mu rafet. waaw xanaa di di nuyu gars yi rek waatim tim commentaire gars yi nekk foofu yëpp maa ngi <laughs> gars yi commentaire yëpp maa ngi leen di ziar baax a baax a baax comprendre nga di wax mhm. ne làmb ji daal li ci ëppoon solo mooy bëri nañ ko ci. Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani Alhamdulillah mu jeex ci alhamdulilah quoi. Mm-hmm. làmb nag laay wax man de manière générale que ne moo ci gagné démb làmb moo ci gagné. Mm-hmm. waaw bi nag docteur Gilles na ko joxal gars yi rek. làmb moo ci gagné daal Fadam vraiment démb gis nañ làmb joo xamante gis nañ xeex gis nañ bëre. Mm-hmm. waaw muy ci côté ñaari mbër yëpp vraiment. donc nag damay wax ne ndam li moom comme Sénégal. Mm-hmm. te ñaari doomi réew mi ñoo doon joŋante. Mm-hmm. Ah. noonu daal la. mais tabakaan ji tabakaan ji Modou Lo le roi des arènes démb làmb xamee ko. waaw non c'est que xam nga man dafa am ay baat yoo xamante ni léeg-léeg dama ko tàmbali wax xam nga làmb léeg-léeg damay wax ne léeg-léegi mbër ñëwee ci benn xar kanam léeg-léegi aussi. borom dëkk baa ngi woote de damay coupé live bi de gaawal balance ay question léegi li ma ci wax li ma lay laaj nii dama bëgg nga tontu ma non li ma lay wax mooy waaw Modou Lo ñu bari dañ ne xàmmeewuñ ko démb waaw mais Modou Lo xam moom faram làmb léegi-léegi mbër da ngay ñëw nekk ci sa jour non non non non non xaaral nag man nag noo defal naag man nag moom bàyyi ma rek man li ma bëgg a wax ma wax ko waaw man li ma bëgg a wax mooy làmb moom moom moo demee noonu. Hmm. loolu du démb la mos a am ci mbër. du démb tamit lay arrêté ci mbër. mooy mbër léeg-léegi da ngay ñëw nekk ci léeg-léeg nga ñëw doo ci nekk loolu sport la loolu ak sport moo ànd. Hmm. Lionel Messi mi nga xamante ni jël na huit fois ballon d'or sax léeg-léeg day ñëw ci match noyé loolu réalité sport la ko loolu est waaw loolu sport moo demee noonu rek loolu moom amut muskil Siteu bëri Modou Lo Modou ci bon forme quoi ndax Siteu xaro ci won mu daan Modou ndax ci Siteu xaro ci won mu daan Modou wa xam nga man dañu waxtanon fi mhm. ma bokon ci ni la wax na la Siteu bu bëggee daan Modou Lo kenn du ko dawloo bi kenn duko dawlo dawloo bi. Mhm. parce que Modou mbeur mu ko daan te mhm. kenn ku ci nekk li nga am mom ngay duggé marché lool aussi buñ ko bañal. Siteu. Mhm. loolu buñ ko bañal Siteu Siteu démb ñëw na bëre combat stratégique comme nu ko ñu bëri ci seen classe gi doon ko digalee. Mhm. xam nga làmb mhm. aussi dafa metti xam mbër mi nga xamante ni moom mooy préparer combat. ak estafam xam nga bu ñu demee ba dernière euh, minute yi. décision finale bi ci ñoom lay jógee. donc kenn ku ci nekk aussi xam nga mag moom lu dal xelam rek lay def. Siteu ay ndaanaan ñoo ko wër ay magu làmb ñoo ko wër. donc ñoom indi nañ seen stratégie boo xamante ni stratégie bu ñu waajal la ci ay weer. Mhm. donc démb moom la ñu ñëw si te adopté ko à la lettre. Mhm. te jii tey jii xam naa ne ñu briefing ko rek ndax xam naa ne tey amoo jot tafaakaan ji fan ngay xaar Modou fan ngay xaar te ndax gis nañu Aziz Aly def benn sorti sànq ne Modou Lo ak Siteu ñemewuñu Balla Gaye mais il faut ma wax ci Modou ba pare. ñëwal ci loolu waa loolu ma gën le roi des koy tirer un chapeau Modou toujours égale à lui-même. Mm-hmm. toujours égal à lui-même un très grand champion. un très très très très grand sportif. Mm-hmm. man démb gis naa Modou sax def loo xamante ni mën naa am ba ma ko gisee xamee muy bëre ba tey mosu koo def. Mm-hmm. waaw mooy combat arbitre sifflé round d'observation tuuti Modou Lo dagg jéng donc Modou il faut ñu jukkool ko parce que Fadam quoi qu'on puisse dire loo ci mën di wax Mouhamed Ndao Tyson dafa révolutionné làmb mais Modou xarañ loo aussi mhm. diggante bi mu jugee ci Eumeu Sène diggante bi mu jugee ci Balla Gaye ci Eumeu seen ba ñëwaat diggante boobu am na lu mu fi révolutionné ci làmb mhm. day wan mi ngi wan rakkam yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw je parle pas de côté mystique nag parce que man man ak Modou Lo man ak yow bokkuñ gis-gis ci xam gàllaaj doo ci wax déedéet ay question man dama ko gëm man dama gëm gàllaaj mais Moodu gëmatu ko donc côté boobu man waxewu ma ci man côté bi may waxee mooy Modou a réussi à être très constant Fadam hmm. mooy Modou saa bu ñëwee làmb bu sumee ko li ñuy xalaat kay mooy volume wala waaye Modou Lo entraîné wut kenn gisu ko ba pare li sport di laaj lépp lépp lépp lépp Modou mi ngi ci moodu mi ngi entraîné heure moodu day lekk heure moodu mi ngi nelaw heure te ba pare li gën a garaaw xam nga nekk ci kaw yomb na Fadam mais des fa moo jafe. loolu Modou du constance te Modou il est très constant macha allah. man loolu moo taxoon rek ma bëgg koo féliciter moom encourager aussi Siteu parce que Siteu fi mu jugee ba agsi fii c'était pas évident. te waxoon naa ne Siteu mën na réussir lu bo Niang ak Ama réussirul. parce que honnêtement na quoi qu'on puisse dire ba ma dalee seetaan bëri ba tey maa ngi door a gis ku yóbbu Modou Lo Ardo ñaari yoon. quelle hmm. que soit finalité bi ak nu mu ko yóbbee ardo mais yóbbu na ko ardo hmm. donc après ma wax ne rek làmb moo ci gagné ci côté bi ngay wax nag côté diggante Modou loo ak kan la war a bëreel ak ci déclaration Aziz Aly Ndiaye. waaw. man naa dama bokk fa dem ci ñi gëm ne Modou loo du bëreewaat ak Balla Gaye sama gëm-gëm la quoi sama gëm-gëm la. ndax du perte maam. waa xam nga des fois nit. noonu na ñu waxtaan nit i nga. xoolal dama bëgg rek ñu waxtaan ci intérêt làmb. ndax Modou Lo bu bëriwut ak Balla Gaye du perte mu am. xam nga Modou Lo débuté làmb ci ci soixante millions. soixante dix quatre vingt quatre vingt dix ba cent nangam. war a yóbbu enchère bi ci fi làmb gën a kawe ca adversaire boobu Modou Lo du bëri moom ndax du perte mu am ndax xam nga ne Modou Lo bu bëriwut ak Balla Balla Gaye rek Siteu dina bëri Balla Gaye loolu moom farfos la. Siteu bëreeg Balla Gaye laa gën a gëm ko Modou bëreeg Balla Gaye. Siteu bëreeg Balla Gaye gën a gëm waaw. Fadam dafa am ñaari affaire yoo xamante ni il faut ngeen koy fàttali. muy la léeg-léegi day am ñoo xamante ni bu leen seen kàddu xasee raw. xaalis mënatul a tax ñu wanaasu woon li ñu génn woon. la te damaa dégg Modou mu ne. Mm-hmm. loolu pare na ci. Mm-hmm. Fadam ma diglu suñu wayjur bu baaxoo muy meer Ndioba yaayu Modou yàlla yàlla gën a guddalu fanam. ñu laajoon ko ci avant mu wax ne tamit la Modou jeex na. Mhm. foofu rek laa ko teg. foo ko teg rek laa ko si te Balla Gaye nag. Mhm. combat bu mën na am la. parce que dafa mhm. mel ni si te nee na ara xaar mbay ma bi mu xaarloo woon Aziz ak Balla nee na yeewi na leen nee na meer xaar mbay ma jaaga bàyyil Aziz ak Balla. nee na pare na pour jëflante ak ñoom. léegi nag li ci des kay mooy nga indil ma source bu leer buy wane na. balagay numéro 2 Omar Sakho mom pare na est-ce que pare na pour Dakar lok Balla Gaye pare na de. ah su paré kay kon teñal buntu bi la ak ak ku bëgg ku ko wétalé rek. Aziz wax na ma ben actualité sax nee na ma pare na pour ñom ñaar yépp ñu jox leen avance su Balla Gaye. ñaar ñan. mudlu ak Siteu yëpp ñu jox leen avance su ak ma seen daal laa koy bëgg dégg. di leer yooyu do ko bëgg. ah. lamb yi neex la de loolu de moom xam nga fi mu ne Modou Lo Balla Gaye coow mooy dañ ko mënatut am waaye ku ko xam nga lu neex la. Mm-hmm. waaw xam nga ne arène nationale gars yi ay une la ñuy wax ak yooyu waaye ku ku ndekkeewut arène nationale xam nga ne boo ñëwee doo dugg. la ilaha moom. waaye nag damaa ragal ne Modou de moom li mu wax du ci delluwaat ginnaaw. Mm-hmm. nag dafa dellusiwaat sama toos boobu dafa am lum mu ñam mu neex. Hmm? ah non luy loolu Balla Gaye ndax ndax Balla Gaye mën naa daan Siteu eh, Omar neexut a seexal géew ndax Balla Gaye la moo mën naa daan li may wax mën naa bañ a neex tarkindaa yi mën naa neex chinois yi waaye Balla Gaye neexut a jëflanteel fadam barke xaadim rasul te kañ ñi ndax Balla Gaye mën naa daan Siteu ah xam nga daan ak daanu moom mi ngi ci loxoy suñu borom rek waaye Balla Gaye de moom neexut a jëflanteel de moom Siteu mi ma gis No day. non Siteu champion la magna. Magna de. champion la magna. na. am na Siteu waxoon. waaw mooy sama combat ak Balla Gaye de bu taxawee suñu premier jàkkaarloo dama koy mbéj wala mu dóor ko lo loolu lépp mën na cee am. te loolu bu ko deful moom ma bokk moom. loolu lépp mën na cee am. Hmm? loolu lépp mën na koo taxaw. signature ba mën naa jot mu ko. ba ca biir ba na waaye bu arbitre sifflé problème war bi sifflé diggante kan kan. diggante Siteu ak Balla. lan la. ma moy sama problème la wax. da nga japp ni Siteu def gaay diko di def no no, non non xam nga làmb mom lu ne na ca am <laughs> làmb mom ku jël sa avant rek da la bëgg daal eh. wa man daal Omar daal man <laughs> ba Balla numéro 2 daal faram. non du Simba la du Balla di Simba. japp nga ni mën naa yow. ah. japp nga ni Simba mën naa daan Siteu non bala man na daan sita sita man na daan bala gay kon lamb la rek sita man na daan bala man na daan Baxna. Yalla yalla yàlla sa ñun ngeen jox ci avance wala yéen la ñaan <laughs> alaykum wa rahmatullah <laughs>